di leen wax la hargne la wax ne affaire mentalité wax leen gëm leen seen bopp xam nga loolu yombul. Mhm. souvent les gens disent que euh, euh, Drogba mi ngi dem fii eto mi ngi def lee ñu fàtte El Hadj Diouf El il a joué son rôle. parce que ni ko jël étiquette teg ko ci moom rek ne ko fookat la wala alors que c' est pas vrai bien vrai que moom moom mun naa wax il fait partie des gens yoo xam te ne ñoo gën a bëgg coupe bi ñëw. Mhm. ñu gën a bëgg coupe bi ñëw El Hadj souvent c' est lui qui parle également à la presse des fois dañ ñëw duñ mën a wax joueurs yi parce que bu jeexee y a des protocoles xam nga rek mm. avec la fédération c'est lui qui accepte de parler avec nous moom moo ñu doon jox yenn information yi xam nga loolu c'est pas facile mun naa joué na ci rôle mu ñëwaat tamit ci Fadiga il a joué son rôle malgré critique bu mu wax ci Aliou Cissé on l'a vu. il a eu à s'excuser ah. waaw on l'a vu. <laughs> match bu mu jeexee dafa daw dugg ci terrain bi côté Aliou Cissé naan ko excuse-moi di wax ak moom xam nga on l'a vu également ñoom Diamasy Camara seen taxawaay ku nga xam te mooy. Mamoudou Niang également. Mm-hmm. Mm-hmm. il est venu ñoom ñoom ñëpp dañoo manko. c'est-à-dire que voilà quoi mbooloo la woon en fait quoi c'est-à-dire que dafa mel ni dañoo rek la génération 2002 avec na ku sax mu mm-hmm. même l'absence même euh, la disparition de de de de Pape Bouba Diop dafa. dafa dafa influencer c'est comme si de l'au-delà c'est lui qui qui est le ciment en fait. de de de cette équipe là en tout cas qui est en train de se construire. Avec un détail bu may terminer ci Aliou Cissé. on a vu Aliou Cissé ouvert euh, c'est le seul coach. Guinéens yi sax ñu ngi ko doon wax Kaba Jawara c' est le seul course bu accepté dem seeti la la presse. Aliou Sow ñëw na ba suñu hôtel. mooy bu ñu nekkee Bafoussam il est venu